gëm bi muy wax nii. xam nga dafa am loo xam ne ni moom fi jaar bu yàggul ah. je pense que quand événement yi fi jaar te ñëpp déploré ko li ci gën a metti mooy. li safaanu gëm bi muy wax parce que yàq. Hmm. toj yàqal sax nit pour ñëpp yem. Hmm. loolu xëy na bokkul ci bokkul ci bokkul ci gëm sa bokkul sa gëm sa réew quand mais mais Abdoulaye pour man foofu mooy le le cœur du débat mooy que ndaw yooyu noonu xam ne li ñuy yàq suba ak ngoon. mais loolu noonu pour pour ñoom la waruñu ko yàq mais loolu comme ni mu ko waxee lu ñuy tàggat la lu ñuy tàggat ci sa xel la lu ñuy tàggat ci sa xol la déclic bi mun na jóge fu nekk ah déclic bi mun na jékki-jékki comme sama genre yi nga bëgg di liir di bouquiner ba jékki-jékki taseeg de de grands comme Cheikh Anta Diop et cetera ñu yee la ñu comprendre loolu la mais. ndekk mais naka la ñuy def ba ci réew mi. Ah. ñu bañ a jàpp ni. c'est-à-dire liy doxal réew mooy euh, falu fal parce que finalement. li tax yàq boobu am mu ngi aaju ci diw la ñu faral moom la ñu war a fal wala diw la ñu faral ñëw diw moom la ñu war a yàqal non mais dama siy ñëw mais xam nga xam nga pour man euh, comme li ma doon wax sànq déclic bi mun na jóge fu nekk mun na jóge ci sa famille ñu yar la ñu jox lay instrument nga gëm sa bopp nga am chance wala privilégié ou pas sànq tudd na Serigne Mboup Serigne Mboup pour man c'est l'un des plus grands économistes de sa pays en tout cas temps Covid discours économie yi mu doon joxe yenn agrégé économie yi joxe wuñ ko. Mhm. Euh, ki moom kër gii nii exemple la boo kër Samba Dieye sànq ba muy wax euh, Moussa dafa nekk sama sama kii ñooñu noonu defuñu école classique bi de mais dañuy joxe ay solution tous les jours. kon mhm. ñun am nañu ay exemple xam nga kon tey jii nii pour man fatalité amul dañu war a jàngal ndaw yi comme li ma wax sànq que mu nekk ci école classique bi wala ci beneen école que war a gëm seen réew que ci war a participer. mais xam nga loolu laay kan moo koy joxe mooy man je suis je vraiment un partisan de l'état interventionniste xam nga lu tax pour man hmm. état bi moo war a faire rêver ces jeunes là état bi moo war a comprendre loo jeunes yi que ni américain bi français bi wala keneen mun a gëmee boppam mun a yeew xam ne bu fa bu amee bu feebaree dina faju bu waree jàng dina jàng état bi moo ñu ko war a jox mais xam nga lu tax bu fekkee ne ay millions de jeunes dañuy gis ne am na ñoo xam ne dañu privilégié parce que ci politique li mu doon wax sànq. démb c'est des trans c'est des éternels transhumants yoo xam ne saa bu ñu transhumé dañuy am ay avantages mënuñu am un discours construit cousu mënuñu am discours économique war na ma ne sax mënuñu bind ay termes de référence pour un projet simple mais chaque fois ñoom ñu ngi ci ay privilèges. Mm-hmm. te loolu noonu média yi di ñu ko jaay mais cette source de réussite là bëgguñu ko. médias yi jaayuñu réussitu Bocar Samba Dièye jaayuñu réussitu Souleymane Bachir Diagne. kenn gënal foofu nag yaa ñu non mais loolu mooy li li am loolu mooy li am. xam xam nga yaa ngi bàyyi jaan di topp yoote duy dóor yaa ngi ko bëgg a jiiñ média yi alors que. <laughs> non non non dama ne <laughs> média leen dama ne média yi dañ ci mais laay média Abdoulaye dañu nekk ci àdduna boo xam ne. média yi dañu nekk benn benn pouvoir benn canal de transmission mais aussi de de formatage. bu mm-hmm. extraordinaire. c'est-à-dire que yenn média yi bu ñu armé lañ bu ñu la nee Abdoulaye du ku baax. mais ñëpp léegi ñu jàpp ne doo ku baax fekk man jàpp naa ne yow ku baax nga donc loolu noonu yëpp c'est des c'est des solution imbriquées yoo xam ne xam nga alaat alaat à la tête xam nga kan moo ci nekk mooy état mooy ki koy jiite mooy ki nga xam ne day wone ne yoon bi man damay faral di wax ne tey kiy jiite réew mi ki ñuy jiite tey moom daf exemple bu patent la ci waroon woon ndaw yi ne man man je de conditions extrêmement modestes mm-hmm. te tey jii nii man maa man maa kii moom moo waroon pendant tout son magistère là dafa waroon won ndaw yi ne c'est possible parce que man tout était contre moi te pourtant tey maa ngi nii kon moom exemple la ci wane ne tey réew mi nii mun na métti trop parce que ñun ñëpp am nañu ay difficultés à moment de notre vie difficultés yu compliquées mais da ngay gëm sa bopp da ngay gëm kii am nga li am solo sànq li ngay wax ak par rapport ak autorités yi am daaw dama dama dama dama dama dama doon waxtaan ak ay autorités américaines ci ci yu nekk yu yu yu yu haut placé ñuy waxtaan ma leen di wax ne leen ñun ñëwuñu fii nii pour ut ay solution pour Afrique. Mhm. pour man solution africaine yi ñu ngi Afrique. ma ne ko wax mais xam la lan laay regretter mooy que ñun ñu jox ñu benn programme bu tudd Mandela Washington Fellow ñu ne dañuy jël les meilleurs africains ñu yóbbu la pour di la pour pour pour pour jàngale entrepreneuriat wala dara alors que CEDEAO defu ko Union africaine defu ko. même entre africains on ne se pas pour ñu voyager ci yeneen dëkk yi dafa compliqué kon gis nga ni chantier yi bëri te loolu noonu ñoom ñu am ay leaders ay yoo xam ne ñoom ñoo war a tracer vision boobu noonu tout est à faire. Mhm. te ñoom ñoo ci war a njëkk. Khadija mais curricula yi dafa mel ni pour weesoo curricula yi sax ni nga xam ne noonu la ñuy encadrer ni ñuy financer ni ñuy développer PME est-ce ñun mën nañoo am suñu modèle yoo xam ne tamit yu gën a adapté parce que dañuy wax ni suñu économie. li ko tiré quatre vingt pour cent quatre vingt dix sax la ñuy wax informel la. léegi bu fekkee ni li koy structure yëpp yi structure yow xam naa ni financé woo kenn koo xam ne dafa ñëw ne la informel la nga financé ko wax dëgg ah naka la ñuy def.